nataal fanweer ak ñett seytaane day wéye di fiir gaay yàlla bu nekk moom noonu la ko gise ndaxte moom noonu yàlla la te doon it suñu noon bu fekkee yow gaay kirist nga léeg-léeg day am nga bëgg a déglu seytaane ba fara def lu baaxul kon bul ne seytaane ma fiir ba ma daanu ci fiiram ba nga ne léegi bokkatuma ci yeesu ñàkk naa lépp déedéet bul wax loolu waaye dawal sukk ci ay tànk yéesu te nga baalu ko ci diibal bi leetar bu njëkk bu yowaana saar juróom-ñeent bind nañ ci bu fekkee baalu nañu suñuy bàkkaar yàlla mën nañoo am yaakaar ci moom ndax moom ku jub la daf ñuy baal suñuy bàkkaar ci turu yeesu doomam ba noppi sellal ñu sanguñu ci lépp lu bon ndaxte moom ku am kóllëre la bu fekkee rëccu nañu lu bon li ñu def yàlla taxaw na temm ndax baal ñu suñuy bàkkaar ndax sarax bi yeesu def ci kaw bant bi bu fekkee rëccu nga lu bon li nga def to nga baalu say bàkkaar ci loolu yàlla baay bi dina la gàttandu nu bàyyi di gàttandoo doomam te mu sori woon ko lool xoolal bu baax nataal bi gaay Christ dëgg-dëgg moom du wut walla muy def lu bon waaye bu fekkee bàkkaar na yéesu taxaw na temm ndax mu jéggal ko waaye beneen yoon nañu def ndànk yàlla du bëgg ñu dëkk ci bàkkaar kàddu yàlla bi mu ngi ñuy wax ci lu leer ci ñaar Timote fukk ak juróom-ñeent bépp nit buy seede ne ci Christ la bokk war na dëddu lu ñaaw